dama tukki woon parce que le Sénégal ne se limite pas à Dakar le Sénégal ne se pas à la Médina ñun dañ demoon wuti expérience dem nañ fu ne nous avons un mouvement boo xamante ni damay profité ci occasion bi di remercier samay ex collaborateur boo xamante bi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci mouvement bi mouvement boobu tuddoon am dem ànd ak Moussa dooleel Macky am na ñi nga xamante ni ñu ngi présent ànd gor yi ba léegi ñu ngi leen jaajëfal bu baax euh, di remercier tamit ñi nga xamante ne ni tey som ñoom ñooy sama compagnon de première heure je vous tey ñoo fi doon nekk fii ma taxaw nii tey fii lañ jàngee arab fii lañ jàngee arab fi ma taxaw nii tey fii lañ doon fuubalee si biti fi ma taxaw nii tey fii la sama maam jiite 33 ans kan moo mu fi gën a yaay jom mooy tukki waaye fula mooy ñibbisi da ngeen wax fula fula mi ngi fi fayda mi ngi fi politique nag dañ koy wax mais nag gars dañuy wax am am tendance à ce que tey ñuy wax politique ñu siy utiliser violence lan mooy violence fii kan moo juddoo Medina te amul fit kan moo juddoo Medina te amul fit kenn ku si nekk mën nga far fu la neex kenn ku si nekk mën nga respect mën nga ànd ak ku la neex mais dans le respect dans le respect parce que tey dama doon wax keroog maa ngi ko doon wax sama benn collaborateur ma ne ko Medina ñëpp ay mbokk lañ Medina boo duggee si benn kër di nga fa ñëw fekk fa say mbokk kon na rafet bu ñu xajalee parce que depuis temps bu xale ba léegi ñu ngi ànd na rafet tey di ñëwaat si àdduna euh, di ñëwaat si AG Jotna Medina AG Jotna Medina dafa doon loo xamante ni ni tey continuité la ñëwoon nañ fi def nañ fi ay action sociale c'était au temps de Amdem may profité di remercier sunu président maître Moussa Diop bi nga xamante ne ni tey ku ko xamul dégg nga ko Moussa Diop bi nga xamante ne ni il a fait des bons jours de Dakar Dem Dikk mu nekkoon compagnon de première heure du président Macky Sall mais léegi gis ngeen ni yàlla lu mu def opposition la jege ñun ñu ngi ànd ak moom si loolu. te ñu ngi déggoo si si si chaque jour ñu ngi déggoo moom si sunu ligne de conduite di wax Médina fii il y a ses réalités. parce que dañuy wax alternative générationnelle mooy dañuy changer li nga xamante ni mooy moo fi ne woon mooy politique Médina sama première réunion je pense que ni loolu laa wax ma ne boo leen ñëwee damay continuer def politique parce que nit ñi xam nañ ma nit ñi xam nañ ma si toit bu baax boo bësee ñaacaam nit ñi xam nañ ko bu baax parce que du tey lañuy doog politique chaque jour damay ñaax sama gars yi ma ne leen gars yi ñëw leen ñu ànd ñu liggéey ñëw leen ñu ànd ñu liggéey am na ñoo xamante ne dañuy dem sax ba ñu fonni la yow da ngay da ngay fo ñun parce que tey suñu quartier bu ñu ko bëggee changer il va falloir ñun ñëpp ñu taxaw ñu ñëw jàpp ci affaire bi dafa jeex ah complexe jeex na duma politique ñuy jóge fële ñëw politique ñoom ñooy nekk ci instance de décision yi yow da ngay taxaw fële après da ngay suivre nous voulons être dans les instances de décision fii si Médina. bu ñu ñëwul jël suñu destin en kan moo koy jël affaire yi dafa war a changer. ñuy wax Médina dafa war a dem si nouvelle base di wax nag suñu compagnonnage on continue notre ligne de conduite tey ñu ngi doon ànd ak benn coalition bu nekk Cheikh Ahmed Ba ñun ñu ngi continuer di dañuy continuer di ànd ak moom incha allah parce que réeroowuñu nag ak suñu waa parti réñëw réeroowuñu tamit ak suñu leader parce que nag dañ ko wax compagnonnage la AG jot na parti la bu Médina CATB tamit Euh, mouvement la ñu ñëw nag mu toog ñu toog c'est un candidat mu wax ñu programme bi mu ñu waxee programme moom ñu xool ko mu méngoo ak suñu programme parce que modernisation lañ wax dafa wax euh, développement wax na leneen loo xamante ne ni pour ay doomu Médina la te ku ko gis xam ni xel nag tamit mi ngi jàppale doomu àddana ku gis nen dangay wax ne na ñii nous ne sommes pas des hypocrites tey bu ñu gisee Cheikh Ahmad Tidiane ba tey taxaw di jàppale nit ñi di def ay social même ñi nga xamante ne ni tey ànduñu woon ak moom jàppale na leen nit ñi gis nañ ko mu am ambition yoo xamante ne ni ñu ma la man ak moom ñu bokk programme quoi pas ñu ñëw ànd ak moom ñu nekk ànd gor ñu def ko àndu gor loolu moom mooy sunu ligne de conduite te dinañ ko continuer wax ji du bëri parce que nag temps bi dafa xat may jaajëfal ñëpp di remercier ñëpp di leen wax nag la travail ne fait que commencer Get me up, up.